merci beaucoup tey jii dañoo ñëwoon ci ouverture mais ben événement événement HLM Olympe di fait, HLM Olympe dafa doon bon tournoi de football am aussi ay yenen discipline yu ñu si Scrabble jeu de dames à boulot, ak ludo ak même un euh, marathon di wax ne ñun commune des HLM nous nous organisé pour la population des HLM c'était le coup d'envoi du tournoi de football ça regroupe tous les toutes les ASC de la commune à savoir les 7 ASC de la commune et aussi nous avons ici ASC bi nga le football ASC montagne cette ouverture comme vous le ko ça a vu la participation des conseillers et aussi de du bureau municipal Nous sommes à gauche comme vous le ko Moussa conseil municipal à ma droite moi le conseil Samandjay amna yenen conseil yi fi donc vraiment mu donnons un moment de de symbiose un moment de de joie pour la population et comme le ngeen gissé tay euh, c'est le deuxième match moi qui oppose moi l'ASC Nimzat ak ASC Baygende vraiment nous mu donne suñu mbébét mu donne aussi luñu war di c'est rek sport dafa doon compétence boo xam ne dañ ko transféré et que ñun mairie ñoo war a def lépp jéem ko développer suñu gox yi HLM nag dëkku dëkk dëkku sport la surtout football et que loolaa tax ñun vraiment ñu siy def lépp lu ñu mën pour que waa HLM gis seen bopp ñu ngi wax ne ne vraiment ñu ngi woowaat waa toute la population autour de ce sport là le football pour gën a jàppale suñu ASC yi pour gën a jàppale aussi mooy ASC bi nga xam ne moom la am te mu doon suñu titre mooy l'ASC HLM bi nga xam mi ngi D1 tey jii euh, tournoi coupe du maire la di ñaaxaat ñëpp ñu xam ne tournoi la ñëpp pour que moi li ñuy def ni une fête une fête des HLM donc nous sommes sant les di gërëm ñëpp dañ wax vraiment li contents nañ pour euh, une victoire générale des HLM. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes euh, ravis pour l'ouverture de l'événement HLM Olympe. Nous sommes au stade municipal des HLM pour le démarrage du tournoi de la Coupe du Maire. Nous rappelons juste que cet événement HLM Olympe est, un tournoi de, euh, est d'un tournoi de football, d'une compétition de scrap d'une compétition de dames, de ludo et d'autres sports. Et c'est avec joie que nous sommes là, ensemble, avec les conseillers, pour l'ouverture de ce tournoi-là. Aujourd'hui, nous allons assister à un match qui oppose l'ASC Nimzat et l'ASC Belgende. Nous rappelons juste que, ce tournoi-là a été l'initiative de la mairie des HLM. Et que cette initiative-là, pour le compte des ASC de la commune, s'inscrit dans le cadre de nos prérogatives. Nous rappelons aussi que le sport d'une manière générale, en particulier le football, est une compétence transférée de la mairie et donc nous sommes dans, une droite ligne de davantage accompagner la jeunesse dans le sport. Nous rappelons aussi que notre ASC Fagnon, à savoir l'ASC HLM, est en D1. Le sport constitue un, vecteur de paix et de stabilité aux HLM et nous n'allons ménager aucun effort pour que vraiment ce sport-là soit partagé par toute la population. Et comme vous venez de le voir, il y a une ASC qui a marqué un but. Donc vraiment, c'est HLM qui est en symbiose, c'est HLM qui est en euh, effervescence. Donc euh, nous demandons à ce que vraiment que cela soit une, une fête pour toute la population. Nous vous remercions vous tous. Merci beaucoup. nee na xoolal naaj bi tàng naaj bi day joué. Thank you.

dama boy dama aboy aboy day so Wow. mooy boo leen ko dugaloon mu dugal en plus. mu ne ana militaire bi. militaire bi bokk na de. waaw dëggalal sa bopp waay ah. waaw première intention dóore bal bi. Ah. dinaa wax ne Ibrahima li ñaan li ñaan bu ko topp. li ñaan bu ko topp muy tànn ak moom bi. amul kenn nang rek nang rek nang rek xalifa bi la góor la da nga xam ne am góor la góor la xam góor ñu nañ toll la mi góor lay ndiroo de góor yaa bëri waaye yoonu sax dox rak xalifa rak xalifa non non ba nga def tek tek jàmbaar sos ko rek sos ko excellent numéro 2 contrôle waaw Ibrahima contrôle bal bi ay soog na ki yéen amul dara amul dara séeréer merci numéro 18 Continue marcando, tudo bem? Agora! Agora! mesure waaw bu leen ko perte bu leen ko perte bu leen ko perte. mais jour la boo xamante ne voilà. mi ngi ñaale. kii mooy kii mooy kii fu wàll la. arbitre arbitre tirage maillot. ah tirage maillot arbitre. Anar Kalema waay. non loolu du football même boo amee paas te paasul boo amee courage da nga koy tiir. No pas juga ambil no Pues, llevador. Proponer. Come on, come on. Yeah! am na a kii a ñëwal

Africain yi de waaw. Thank you. sant la kay waaw waaw loolu la kay non ñii moom loolu la ñuy fi woon waaw waaw waaw dama jàpp baax na de

parce que première heure dafa sommes ñu nekk ay jeunes doon ay c'est normal on a joué le match on l'a abordé avec philosophie tamit joué mu nekkoon match bu 1-1 à la fin ci lañ jël deuxième but bi mu nekk une première défaite ci tournoi bi nekkul la nga xamante ne lu luy encourager équipe la mais tamit euh, mën rendre fort ci compétition le reste parce que dese nañu ñaari match donc cela signifie qu'on n'a plus droit à l'erreur. Donc il, forcément, on doit gagner nos deux prochains matchs, Inch'Allah. Et ce que je souhaite, je remercie la staff technique, je remercie euh, mes, mes, mes joueurs parce que tamit, euh, le quoi qu'on puisse dire, c'est des jeunes qui ont malgré amaguñu expérience bi nga xamante ne la am parce que ay invité lañ expérience mais ils xam ni il face à eux des jeunes

di fàttaliku ne sport dafa doon loo xamee ne suñ ko tax tey organisation bi mairie bi def kontaan bu rëy lañ si am di leen ñaaxaat di Thank you. waaw waaw football amul secret football lu may wax rek ma ne leen day entraîner ku ne joueur nga da ngay compétir nekk si club nga joué fa nga bañ a joué l' nga compétir am dara sa tànk tey looloo feeñ parce que bàyyi nga ne des na ay joueurs yu bari mais dama xool xale yi ne ñu ñoo nekk si club yi compétir bàyyi ma indi leen euh, xale moo gën a neex a waxal que leneen dañ ñëw rek appliquer lu ñuy entraîner rek yàlla. waaw équipe bi dafa tijjeeku parce que Baye Gaynde ku ne Baye Gaynde sa première impression mooy Ala Ali Koulibaly Aliou Koulé ba pare dafa toog am nañu yeneen jour boo xam ne tur yi bëgguma ko lim sax gars yi gën ñu xam mais objectif bi mooy jouer euh, tournoi bi match par match match match bu nekk ak ni ñu koy aborder ba yàlla def daal bëgg nañ jouer final. luy am nag yàlla moo ko xam mais ñun suñu mbawoon mooy tàggat booy yi leen si cadre lépp si discipline si fair play suñ ñëwee appliquer lu ñuy entraîner. waaw donc actuellement comme que équipe bi dafa toog lu pendant huit nawetaan amu fi études yi amul benn structure dañuy ñëw selon benn école football bu nekk biir Baye Gaynde ñu ñëw ne statut bi day doon ñii pour ñu commencer ñi am ñu si doole mais côté aide financière ak dara amuñu ko parce que benn bal sax la ñuy entraîner nga bëgg entraîner une trentaine de personnes ak benn bal day difficile mais bon comme que ñun si métier bi lañ nekk dañuy def euh, jéem a adapté wu su circonstance bu ne loolu la ñuy liggéey. Hmm. Hmm. C'était un match euh, pas difficile, mais on l'a appréhendé d'une manière un peu bizarre parce qu'on ne sait pas je fais d'abord. Je félicite aussi l'équipe qui nous a gagné. Ils l'ont mérité. Après, c'était un match un peu bizarre vu le contexte. On a eu deux buts avec lesquels ce sont nos joueurs qui l'ont marqué. On a fait une, deuxième, une bonne deuxième mi-temps, mais bon, ça va, c'était un match un peu bizarre, comme je le dis. Et je félicite mes joueurs il reste deux matchs, on peut les gagner. problème d'organisation. Mhm. Oui. Euh, on nous a convoqués vers 16h30. Mhm. On est venu presque à 16h45. Il euh, y avait des joueurs mhm. qui avaient oublié leur carte d'identité. Donc on les avait en numérique. On a présenté les cartes d'identité en numérique. C'est ce, qui, ce qui a chamboulé. Pour le prochain match, comme c'était une sélection, on n'a pas eu le temps de s'entraîner. On a vu un peu l'équipe. Pour le prochain match, on va mettre une équipe un peu plus solide, défensivement d'abord, parce qu'on a eu des lacunes défensives qui se comprend. C'est une paire qui vient de commencer de jouer, ils se connaissent, ils se connaissent qu'aujourd'hui. on va faire tout notre possible pour que le prochain match soit le bon, que ce soit une victoire bien méritée. Alors, euh, euh, nous